aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ci ñaar fukkeelu jataay ak ñeent ci téereeb xalimak leer noo ngi tàmbale woon xasida ak bin Mustafa di wax sabab bi taxoon sëriñ bi bind ko leen ci jota nettali ak i tàmbalik eh, xasida gi la nga la ko tàmbalee muy wax ne xasida gi dafay saafara mboolem jàngoro yi waaye it kaaraange ci pexey mboolem noonu yi ci biir xasida gi mu ngi ci ñaanal julin yi moom sëriñ bi di wax ne sunu borom yàlla na nga aara xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lu leen di jëme ci lu dul ak jaamu yàlla te musal leen ci aw ay wëlbatil leen saytaane ba faw mu jëm ci ku dul ñoom te nga fegal leen ñépp mbindeef mu leen di song yàlla na nga defal saafara ci mboolem ñi tawat te jox leen lu leen di may kaaraange ak mbégte ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga def ci xol yi lislaam gépp ak kóolute ak dal te nga fegal leen lépp luy indi ak woru xóot ummatal mustafa amma yajur lahum siwal ibadati wa simhum min alsharari wasrif li gayrihim alseytaana fi abadin waltakfihim kulla man yastu min albashari waltasrif daa amma daljamii bihi wajlu lahum mujibati al amni walbushari wajal quluba dhawi lislaami fi amanin waltakfihim kulla ma yufdi ila algarari bu nu seetee ba tey ci eh, wakkaana xàqan nu mel nii la dikkee maa nga cee ñaan sunu borom ne yàlla na nga jëmee ci jullit ñi luy gàcceel ñu dul jullit yàlla na defal xeetu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak nangu guy soril seeni noon di leen soril jàngoro yi ba faw wajjih liman qad amanu wa aslamu wa axsanu muxjila man lam yuslimu kawin li ummati nabi salla alayhi bi taslimi rabbun jalla ijabatan tuzahzihul aadaa ila siwaahum sarmadan waddaa ba tey mi ngi ñaan sunu borom ne yàlla na nga aar xeetu yonente bi salallahu alayhi wa ci ayu yéefar yi yàlla nga leen wàmmatal ndimbal lu gaaw te bëggal leen tey ak xafiisu sunu ummati xayri mursali an alladina kafaru bi rusuli qud lahum nasra al aziza ajila wa bashiranum ajilan wa ajila ñaan yu mel nii eh, bari na ci lool seetal yi wu wi nekk ci jàng xasida yaa ngi koy jàng di ñaanal sa mbokk julit yépp te loolu yiwu baree ci nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit du ñaanal mbokkum jullitam ci lu mu yëgul lu dul ne yàlla dina yabal malaaka muy wax kii ñaan ne ko yow it li ngay ñaanal sa mbokkum jullit mi sa borom defal na la ko kon loolu lépp rek day wane ngeneel yu rëy yi ci xasida ñaan yu rëy yi ci xasida ak mboolem li nga xam ne da cee dafa jëm ci euh, jullit ñi bu nu yegsee ba tey wóyal ci wet googu bu nu dellusee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu